jërëjëf même pas suba la ñu a dem campagne. Ah, jërëjëf jërëjëf alors. mu ne kenn du dem campagne kenn du mu ngi reculer élection yi. Mhm. mais mais soxna si. Mhm. man dootuma duggati ci rajo bii di wax wala may oo nit ñi may wala may dimbale kenn Sénégal dootuma dimbale ci kenn. musta am Sénégal muy élection présidentielle bu ñu dàq. effectivement li njortoon nañ ko moo tax ñu defoon conférence de presse boobu. pour mhm. euh, artu pour alerter. Euh, waaye xaayaan ku dégg séeréer euh, nous avons alerté plusieurs fois depuis le début mhm. ba processus électoral bi tàmbalee ba léegi waaye dafa mel ne nopp yu ñuy yuy dégg nekku fi waaw ci nga ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dégg loolu pour jafe ko pour taxawee parce que bu ñu ko déggoon mhm. xëy na du ñu agsi fi yëpp alors d'abord euh, message du président de la république yi dama ci am naqar ak mbetteel bu bu bu mag a mag a mag alors donc di ko ñaawlu vraiment fu ñaawlu mën a yem parce que euh, moom mooy ñeenteelu euh, président de la république Sénégal waaye ñi ko jiitu ñëpp muy Senghor muy le président Senghor di le président Abdou Diouf di le président Ablaye Wade kenn xalaatu ci mosu ci xalaat pour toxol pour dàq datu élection euh, surtout élection présidentielle kon lii dafa mel ni tey la njëkk ci histoire ci taarixu Sénégal ci histoire u Sénégal mhm. donc mu mel ne dafa nekk précédent boo xam ne bu grave bu dangereux ah surtout que boo ko jëlee si sur le plan de la forme d'abord dafa euh, suspendre euh, décret bi nga xam ne moom la jëloon à quatre-vingts jours parce que code électoral bi moo ko sant ne ko loi organique boobu moo ko sant ne ko bu yi desee juróom-ñett fukki euh, fukki fan mhm. na nga jël décret pour convoquer bi du ci coobare boppam loi moo ko sant mu def ko kon nag koy dindi loi moo ko ko war sant waaye demeewul noonu ñun ñëpp gis nañ ko kon amul fenn fu mu ko mën a wékk ci wàllu loi pour pour pour euh, abroger euh, décret boobu convoqué woon le corps électoral waaw ci moom ci waxam évoqué wul benn loi ci waxam du ne fa foofu la ko wékk waaye li mu junj li mu junj xam nañu ne peut-être mooy pouvoir yi nga xam ne exceptionnel yi ko euh, constitution jox ci article cinquante deux or or foofu affaire euh, crise institutionnelle la ñuy wax bu ñu demee ba institution yi di xëccoo ba mu am crise am blocage bu boobaa moom war na intervenir pour jël ay mesures yoo xam ne dafay tax institution yi fonctionner normalement mais loolu nekkuñu ci actuellement donc ñëpp gis nañ ne ñoo euh, en fait euh, ay nit ñoo ñëw créer une crise artificielle qui n'a de crise que le nom d'ailleurs donc du point de vue de la forme su suspendre euh, décret bi convoqué woon corps électoral yi c'est-à-dire processus électoral bi dafay taxaw mm-hmm. ba pare fixé wul moom beneen date ça veut dire que autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk processus électoral bi yëpp génn na leen ci denc mu nekk ñooñu ñëpp dañuy taxaw dañuy génn xamatuñu li ñuy def parce que ñooñu bala ñoo mën a agir ñu fixé convocation euh, euh, euh, ñu convoqué corps électoral bi donc ñooñu génn nañ ci processus électoral bi dama mel ne kon moom léegi rek moom mooy nekk le seul maître du jeu à bord le seul maître à bord alors léegi li mu wax mooy que dafay convoqué dialogue moom du dugg ci xëccoo boobu nee na xëccoo bi am diggante assemblée nationale ak euh, conseil constitutionnel bu fekkee ne xëccoo am na sax alors euh, assemblée nationale laaj nañ ko abe mu ne leen mën ngeen doxal foofu ñëpp xam nañ ne moom bu ci àndul woon effectivement wala partem àndu ci euh, PDS ñoom rek ak seen jubbu bopp mënuñu ak àggal mbir mi fi kon nag moom loolu wala procureur ay ay mi mi juge Cheikh Ndiaye yóbbul plainte ñoom ñu joxoon ko peut-être ordre de poursuite wala d'ouvrir une information judiciaire loolu tam ci président de la République la dépendre. dégg ma ne wala ñoom ñu joxoon instruction au procureur de poursuivre puisque ñoom ñooy patron au procureur le pouvoir exécutif bu procureur ubbi woon information judiciaire la assemblée di def dafay taxaw kon xëccoo dootul amati. waaw très bien xam nga mënoon na jaar foofu. mais jaarul foofu fii la jaar. <laughs> voilà ça veut dire que donc seen intention intention mooy mooy révision yi. or or dialogue boobu mu woote aussi euh, yaakaaru boobu mu mën a am parce que doo jël reporter élection bi pare woote dialogue li nga war a def doxalin bi nga xam ne moom mooy yoon mooy nga dialogué ba pare soog a reporter d' autant plus que protocole additionnel. de la CEDEAO sur la bonne gouvernance la démocratie et les élections dafa ne benn réew bu bokk ci CEDEAO warul mën a jël benn dogal buy affecté processus électoral bi te wéeru ko ci déggoo bu large ak ñi nga xam ne ñoo seq déewu politique bi consensus consensus large donc alors euh, dialogue boobu wootewu ko te jël na mesure bi donc c'est contraire au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et les élections mm. et c'est contraire aussi à la loi organique euh, que constitue le code électoral. Mm-hmm. parce que def na code électoral def na ko en quatre-vingts jours da nga jël décret convoqué euh, ah, corps électoral mm-hmm. mais waxu ko fenn ne ko euh, bu lii amee wala la mën nga jël abrogé ko mm-hmm. te abrogé ne ko te wéeru ko ci benn consensus alors mu mel ne donc lii daf ñuy dafay yóbbu réew mi ci situation boo xam ni ci guddi gu sete gu ëpp setekul mën na dugal réew mi ci lu nekk lan ngeen di ragal yow personnellement lan ngay ragal ci situation bi ñu nekk. non le problème mooy que moom mandaam bi ngi yem ci le avril ñaari fan ci weeru avril. Hmm. te moom wax na ne effectivement moom euh, bamtuwaat na ne moom nekkul candidat ci élection yi di ñëw. du bokk. te te te constitution bi mayu ko mu weesu le deux avril donc léegi bu fekkee ne date amul dañu dem ba deux avril nu muy def dafay dem yoonam. ok bàyyi lenge yi ak kan président assemblée nationale parce que loolu la constitution bi wax te kooku bu fekkee ne situation bi noonu la demee kooku ñetti weer la am quatre-vingt-dix jours mm. pour mën a organiser élection yi mm. mais comme ñoom nii ñuy doxalee boo ko gisee nga xam ne dañuy créer une situation artificielle dañuy sooke benn situation mën nañu tam bu ñu demee ba ci kanam ñu soo benn situation dugal situation réew mi ci li ñuy wax situation d'exception mu mel ni réew mu nekk ci guerre di daal di fas yéene nag toog fi ba faaw <laughs> loolu peuple sénégalais du ko nangu. Mhm. ay ay couvre-feu ak état d'urgence yëpp mun cee am ah. ma ne ay couvre-feu ak état d'urgence yëpp mun a génn su boobaa. mais bu boobaa day dugal réew mi ci ay fitna yu garaaw a garaaw recul démocratique. ah ak reculu état de droit te loolu àddina bi yëpp actuellement fi ñuy wax ma ak yow àddina yëpp ñu ngi fii ci ci ci ci ci mhm. ci réew mi. Mhm. parce que campagne bi dafa waroon ubbi comme ni nga ko waxee sa njëlbeen wax. Mhm. Euh, suba. ñoom ñëpp ñun am na ñun ci dayal déjà. Ah, am na ay laaj yu ñu laaj daya yu ñu laajoon ci lii tontu woon nañ leen waxoon nañ leen ñu jot ci lii. waaw ah, wax leen conférence de presse bi ñu def li taxoon ñu njort ko jox leen documents yeeg yëpp donc ñoom xam nañ lu xew aussi. voilà voilà kon yéen dara dara bettu leen si alors Djibril yi nga bon doo analyse politique mais lan nga jàpp dëgg dëgg dëgg ne mooy principale motivation wu décision président Macky Sall bi bu weesoo xëy na Karim Wade dafa waroon a bokk bokkul est-ce que li mu joxe comme motif convaincre na la wala danga gis leneen lu nekk si ginnaaw. non moom li def mooy ñoom euh, d'abord dañu parewul dans leur camp on voit qu'ils sont divisés. sont divisés et semble même qu'ils ont des problèmes avec leurs candidats. Ça, c'est un. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu aussi que l'opposition ñi jàll ci parrainage bi jàll. ñu mel ne Bassirou Diomaye Faye bu Pastef wala euh, Habib Sy wala Cheikh Tidiane wala et cetera autant de candidats. Mm. peut-être prévoir uñ ko woon et cetera prévoir uñ woon aussi PDS. bañ a jàll peut-être que am na alliance bu ñu doon tabax. Mm. déggoo et cetera pour que PDS indil leen. les quatre cent mille yi ñu am ñu boole ko ci la ñu am ñoom pour mën a am euh, buñ jàllul premier tour aussi deuxième tour ñu mën a jàll loolu yëpp su faussé maintenant <laughs> alors ñu dugg ci ay calcul politique lii loolu ay calcul politique kese la hmm. dañu la nekk ni di def c'est-à-dire que bu génnee euh, maintenant tous les acteurs processus électoral il les met out hmm. parce que il abroge le décret il ne fixe pas de nouvelles lois de, de, les élections. Mhm. Donc, toutes les, euh, tous les organismes de gestion des élections sont out et il est le seul maître à bord. Même le Conseil constitutionnel est out. Donc, ni processus électoral, ils sont out, il est le seul maître. Donc, ça lui permet de faire face à son camp mmh. et ça lui permet euh, euh, de faire face aussi à l'opposition et peut-être d'essayer de les diviser d'organiser un dialogue sur mesure et peut-être d'aller à une nouvelle date de façon favorable. le changer même peut-être de candidat, etc. Mm. Mm. en tout cas de mieux préparer son candidat. Mm. mais loolu yëpp soo koy def aussi da koy teg ci yoon parce que ci état de droit la ñu nekk ak ci démocratie nga xam ne dafa laaj élégance. Mm-hmm. bi ma la doon wax yi nga xam ne ay nattangoom yi nga xam ne ñoom la ñu tegoon seen loxo. Mm-hmm. ci seen loxo réew mi réew mi ci seen loxo. Mm-hmm. yore nañ ko réew mi ba jóge fii gàcce ngalaama vraiment ormal réew mi réew mi ormal leen ñu dem ci jàmm. mais vraiment lii moom euh, vraiment rafetul jekkul rafetul. jërëjëf jërëjëf Djibril Gningue. waaw kay jërëjëf Fatou Thiam Ngom. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci euh, jàngat bi muy Djibril Gningue euh, bu pacte nekk itam ku bokk ci société civile bi am ci taxawaay bu am solo nekkoon itam ci GRADEC.